mbokk yi ci noonu ñu jukkil leen xëtu yéenekaay yu fi rusee tey fas yéene ko door rek Walf Quotidien yéenekaay bi jiitu ca fajar Euh, xëy na amal atterrissage jëm ci avion goo xamante ne njiitu réew Macky Sall jënd na ko avion gu bees la euh, Walf Quotidien am ci taxaw seetlu gu yaatu ne ana lu sooke mu ci nëbb askan wi lu bari ci google avion askan wi dañ ko umpale euh, laq-laqal gi ci am moom la wal Walf Quotidien xëyee tey njeg mag fu mu toll avion googe ci fukki fan ak juróom benn ci weeru sulet gi ñu jëm la nar a tabbi Eh, ci loxo nguurug Sénégal mu ngi ci Walf Quotidien eh, gouvernement bi lu mu waxul askan wi ci googule avion Walf Quotidien xëy diñu ko xamal eh, dikkaat na itamit ci opposition bi mer nañu ba futu bokk na ci société civile sax jommi jommet la ñu def ci njëgu avion googule mu ngi ci Walf Quotidien ci xëtam bu njëkk alerte quotidien ne avion gu bees moom la njiit réew Macky Sall jënd ci jamono ji assemblée nationale moom yëgul xew yëgul njëgu avion googule Eh, bokk na ci eh, xaalis bi nga xamante ne moom la avion ba jar eh, génnee ci poosu askanu Sénégal askan googee sax dañ leen caa beddi yéene cabinet jënd na avion ci jamono joo xamante ne mbas maa ngi ne këtt ne jon comme réew mi demeetul noonu bor gi nga xamante ne moo topp Sénégal bari lool ba tax na njiit réew Macky Sall yàggu dara mu ngi ko doon joytu ci réew yi ëpp koom ngir ñu jégal Afrique seen bor waaye nag tey jii Euh, jël na geneen bor gu mu tegaat ci ndoddu askan wi yéen kaabi di le quotidien mu ngi ñuy dektal avion présidentiel gu bees tàq yéen kaabi di ñu xamal ne 320 euh, néo goo xamante ne jur na euh, jiixi jaaxa ndax koppar yañ ca dugal ci ñaata la war a toll yéen kaabi xëy ñu ko yeggee Omar Gueye di ki yor wàllu kaddu guvernement bi Euh, gis ne secret défense la jëm ci googu lépp euh, avion mu ngi ci le quotidien yéen a kaabi di direct euh, news xëy dañu dektal njiit réew Macky Sall ak nam ca doxalee Eh, bokk na ci kañ la njëndum avion doon secret défense eh, ci mim réew doon lu jaxal lool député ba woon di Cheikh Omar Sy moom la xëy di laajte bokk na ci ndax njëndum avion googule waxtaane nañ ko ci assemblée nationale nañu def ba jënd ko waxaale gaag koppar yañ ca dugal eh, doon lu direct news bëgg a xam yéen a kaa bi di l'info xëy fësal njiit réew mi Macky mu mel ni pilote ci biir avion gu bees Euh, gamu jënd njëg ma toll ci euh, téeméeri euh, milliards noonee la ko yéenekaay bi xamle ci xëtam bu njëkk lii quotidien mu ngi ñuy dektal leneen i tamit ci lii quotidien maanaam njiitu réew Macky Euh, nam ca doxalee ci njëgum avion goo xamante ne toll na ci juróom fukki milliards ak juróom-ñeent avion googeek la ko wundu la ko sooke coow li ci tàmbale am euh, te avion googe tàbbeegul ci loxo nguur gi ci weeru sulet lañ koy xaarandi euh, mu ngi ci yéenekaay bi critique moom mu ngi ñuy dektal njiit réew mi Macky Sall jéggi na jafe-jafe tolof tolofu askanu Sénégal gi dund ci jamono ji réew baa ngi tàggatembe ndax kom gi demeetul noonu njàng meek njàngale mi bari coow paj maa ngi nii gajaf ndax mbas mi di coronavirus ak yeneen ak yeneen tey jii la doonoon jàmp lool ci soxla askan wi moom la njiitu mi Macky Sall taxañ tege ko wet jéggi soxla askan wi jënd avion bu bees mu ngi ci eh, critique ci xëtam bu njëkk yéen a bi di eh, l'observateur xëy du ñu yeggee njiitu réew Macky Sall eh, bokk na ci solu na solum pilote fas yéene dugg ci avion bu bees ga mu jënd l'observateur mu ngi ñuy degtal avion googee koppar yañ ko xaymaal euh, bokk na ci ne mu ngi ko mu ngi jógee Euh, ci forces armées euh, koppar ga fa la baw euh, mun a jënd googule avion présidentiel noonu la ko yéene kabi di l'observateur fësale yéene kabi di turbine ne gën na yokk borob Sénégal njiitu réew Macky jënd na avion bu bees turbine moo ñu ko yëggee juróom fukki milliards njëg ma ca lañ ko xayma ci jamono joo xamante ne daanaka askan wi tolof tolof ga ñu dund ak i tamit fu réew mi toll ñu ci soobu ci dépense geneen goo xamante ne jëm na ci njëndum avion ca koppar googe waroon a xaj feneen ci soxla askan wi euh, mu ngi ci euh, yéene kaabi di euh, turbine ñu ngi jooy mbas mi di Covid 19 beneen mbas fas yéene teguwaat ci ndodd di gu ñu ci mun a fekk. yéen a bi di Le Soleil xëy fekk njiit réew Macky ci tournée économique gamu nar amal eh, ci gox yu bëri eh, bokk na ci Kaffrine ak Kédougou njiit réew Sall eh, dina fa jaar ak itamit ndaje moom ek na muy doxalee Kaffrine itamit nganda ba Kédougou ak Medina réalisation yi nga xamante ne njiit réew Macky jot na ko fa amal ak lam fa nar a jëmmalaat ci wàllu projet yéen a bi di Le Soleil xëy ko yëggee mën nga ca wàccaay élection locale yi ñu jëm te élection yi jotagul yéene cabinet mobilisation euh, gu takko takku moom la njiitu réew Macky Sall yi teewoo ci yooyu la wote l'évidence xëy di ñu ko yëggee euh, ci xëtam bu njëkk Habib euh, Niang mi ñu ne doon na euh, kàngam goo xamante ne moom la jiitu réew Macky Sall nar a jëmmal ci euh, Thiès googe jëm ci élection locale yi ba ci élection présidentielle yi bokk na ci mouvement ànd suqali Sénégal nga xamante ne li bu takku ci ay membres ñoo ca ne mouvement googe mujjee tàbbi ci APR moom Habib Niang doon responsable APR nar a dagaan batu askan wi ci élection local yi ñu jëm ci googu lépp diwaan ca diwaanu Thiès mu ngi ci 24 heures yéen a kii témoin xëy duñu dégtal ñaxtu goo xamante ne amal nañ ko ci xolu Ndakaaru ca de la Nation Euh, bokk na ci ànd euh, sàmm jikko yi ne déet euh, duñ fi bàyyi ñu fi daganal wala boog di fi yoonal mbirum góor jigéen ànduñu benn yoon ngir ñu jëmmal mbirum góor jigéen ci mim réew sàkku nañ ci nguur gi sax mu fexe ba gindi ci askan wi sàkku nañ ci kilifa diine yi ñu béy ci seen waar yéen kaabi di le témoin moo ñu ko yëggee ci xëtam bu njëkk Sud Quotidien ne ndaje ma yaawoon na lool lim bu takku ci ay doomi aadama ñoo ko fekkee mbedd mi nee nañu déet ànduñu ci mbirum góor jigéen Euh, fii ci euh, mim réew yéen kaabi di Sud Quotidien moo ñu ko yeggee euh, ñaxtu googee sax jibee na ci Ndakaaru Thiès Mbour Sédhiou ak feneen ak feneen waa ànd sàmm jikko yi ne lañ ci doon séntu gis nañ ko ci askan gu takko takku seen ñaxtu googee nag doon lu mer lool lool ñii day homosexuel foofee ca France ba tax na mere nañu lool nguur ko Sénégal na mu seetaane yi leen ndaje yooyu les homosexuels ca France ne daanaka dootuñu sax may ñenn ci kilifa yi ñu dugg ca Europe ci nu leen neexee dànkaafu nañ ca xalif général des Tidiane dànkaafu nañ ci tamit xalif bu Thiénaba Babacar Mboup imam euh, Dame Ndiaye ba ca imam Moustapha Guèye ak Dame Mbodj ak imam François Mbodj euh, Clédor Sène Assane Diouf ak ñeneen ak ñeneen ñooñee lañu ñu soxlaatul euh, ca Europe bu ñu sukkandikoo ci yooyu la homosexuel ca France yéen kabbi di réew mi quotidien xëy dalal sawa Safwat Ibrahim di ambassadeur bu réewum Palestine fii ci Dakaru mettitlu na

la xew ca Palestine askan walla ñuy dund ci nooteel bakkan ya di rot ba tax na yekk na lu mel ni xeme eh, réewum Israël mi mu ne réewum wayu la mu ngi ci eh, yéenekaay bi nga xamante ne eh, mooy réew mi quotidien libération xëy di ñu dégtal mbirum traficu drogue juróom fukki kilogramme chanvre indien goo xamante ne teg nañ ko loxo teg ca loxo nag ñaari militaire na mbir ya tëddee mu ngi ci yéenekaay bi di libération yéenekaay bi di las ne coup d'état ci biir coup d'état moo am foofe foofee ca Mali bu ñu sukkandikoo ca la xew ci googule eh, réew eh, premier ministre Bak eh, bokk na ci tamit ka nekkoon ca kilifte fu réew ma ñoom ñëpp la ñu teg loxo mu ngi ci yéen a di las yéen kabi di Dakar Times ne coup d'état googe amat ca Mali dina jafe lool armée bu Mali mun a taxaw askanu Mali ci anam yu mucc ayib bi mu ngi ci biir yéen kabi enquête xëy duñu dégtal euh, Fatou euh, Bensouda di tamit procureur général bu CPI wax na lu yaatu ci dossier yu yaatu yoo xamante ne jot na ko saytu euh, foofee ca cour pénale internationale yéen a kaabi di suñu làmb seen jàkkaarloo gu njëkk amal nañ ko laata combat guy gi rëg-rëg bokk na ci diggé nañu combat gu nar a neex lool lu ne dina ci tukkee Eh, dóor mu daanook eh, bëre ba jeex eh, mun naa am ci googu lépp komba rëg-rëg moom artu na guy gi guur gi ci boppam i tamit feelu na ko daal di ko artu bu ñu sukkandikoo ci suñu lamb mbokk yéem ak fu ñu jeexale xëtu yéene kaay ci baatu askan wi